asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi tudd Mamadou Ba. du ñun dañoo jékki dañoo jékki-jékki gis lu nu jaaxal dañoo jëkki jékki gis lu nu jaaxal suñu tund bi ci diggante kër Abdou Ndoye ak Njoxoob Géej dañoo jékki gis fi ay tubaab yoo xam te ne dañ fee dugg di tibb suuf si ci loo xamante ne ñun yëguñu ci dara yëgu xamuñu nan la mbir mi demee te def ñoo lëndëm lëndëm boo xamante ne fi ñu toll ni kii bi fi muy jaar ci suñu biir tool yi la jaar ci biir tool yi la jaar tali bi ci biir tool yi la jaar waaw dafa jaar ci biir tool yi te suuf si buñ ko tibbee suñu tibbee suuf si kur wi ci boppam dañuy am problème te kur waa ngi nii yéen gisal ngeen seen bët ne si suñ ko jaag suñu daggee kur wi ñun musiba lay doon si ñun te ñun li ñu xam mooy béy ñun béy la ñu jëm comme Macky Sall nag président de la république dafa yeble dafa digle pour ñu béy ñun dañ koy laaj ba xam te ñoom li ñu wax ñi nga xamante ne ñoo ko jiite nee na affaire bi état la ñun nag ñu ngi lancé un appel monsieur monsieur président de la république Macky Sall mu wax ak ñun ñu xam mi nan la demee lëndëm bi ci nekk dañoo bëgg a xam la demee dañoo am ci lu nu lëndëm ci lii ci bëgg mu leer waaw suuf si ñun d'accordum tey d'accorduñ suba bëgguñu ku ñu ndàmpaay dara dañoo bëggul tey d'accorduñ ci tey d'accorduñ lu ci mairie bi waaw mairie bi lim ñu wax mooy affaire bi état la. état moo ko d'accord moom la mairie ñun li ñu mairie wax ñoom ñun affaire affaire état la te ñun def ñoo lëndëm nangu ñu wax ne li ñuy lan lañ ci def ak lan la ñuy demee dañoo jékki-jékki gis ay tubaab yi natt suñ tund bi di photo di napp tibb fi ñu toll ñu ngi tibb di ñëw te ñun d'accorduñ tey d'accorduñ suba population baa ngi ni xaaj gi sax ñëwuñu li xaaj gi sax daanaka dañ mu nekk loo xamante ne dañoo jaaxal dañoo ump dañoo ëlëm te fi ñu toll nii jaaxle lañ nekk jaaxle jaaxle lañ ñokk te sunu tool yi rek lañu jaaxal yaakaaruñ leen lu dul lool tool yi lan la ngeen fi liggéey waaw dañ gis àll bi ñu koy liggéey fii lañ fi génn fii la dañ fi béy pombiteer di fi béy soble di fi béy carotte nawe kaani poivron lépp loo gis ci marché bi boo jaaree marché kiram lo fii la jóge fii lañ koy fii rek la ñu liggéey waaw ay junni junni ndaw ñoo fi liggéey ay mag ak ñëpp ñun yaakaaruñu dara lu dul tool tool daal la ñu yaakaar tool daal mooy suñu problème euh, lii fi ñu toll gisal seen bopp yéen journaliste yi gis ngeen yéen gisal seen bopp portège bi lii tund bi moo ñu portège mooy protéger kur wi te kur tey képp ku fi jóge dem mag daanaka ci nga jóge ci nga ci nga ci nga ci nga am aji je te duñ ko dindee fii lay doon ci ñoom musiba lay doon ci ñun ñëpp te yaakaaruñu leen lu dul ñu ngi koy wax nag président Macky Sall mu yëg ci wàlluñu lillahi wa rasulihi affaire bi nañ ko arrêté bëgguñu ko tey bëgguñu ko suuf d'accorduñu tey d'accorduñu suuf waaw waaw euh, tey jii lii nga yor nii moom ne nga ci ngeen di arrosé te si ngeen di dundal njaboot gi ci siwo yi nga xam hmm. la ñuy roose teen yoo xam ñetti meetar ñeenti meetar di ci roose pour suñu njaboot am lu ñu dund. Mhm. léegi nag ñu ngi ci jaarale ñu ngi ci jaarale affaire wañ suñu loka mhm. carrière bi ñëw mu ànd ak camion yi rang ci tali bi pour ñu tibb suuf bi te bu ñu tibbee suuf bi ñun ñu yor fii ay cuucu nag nag yi day def direct dugg biir kur bi kenn dootu leen mën a nag maa ngi ñaan yàlla président Macky Sall nañu jàppale nañu jàppale nañu jàppale mu mu ko mhm. waaw. ci kaw. man la lu ñëw fii tey yàgg di ñëw am tool ndax filaawo yi sama tool ci suuf eh, bi nga xamante ni bii xale yi woo nañ ma téléphone wax ma ni ma ñu ngi tibb suuf si nekkul woon sax lu ma gëm mais ma ñëw fii. yéeg montagne bi gis oto bi muy ñëw mu jubal sa maire ni ko dama bëgg waxtaan ak yow ci carrière ba ñuy def fële maire li ma wax mooy que ni demal ba suba fii ak nii nag man xaw ma lu mu doon <laughs> maa ngi arrêté ay parce que bu ñu dañ koy arrêté ñun dañ koy arrêté arrêté rek la ñu wax waxuñu leneen kaw tund yëpp ay tool ko wër tund yëpp ay tool ko te it dégg nañu ay projet sopp nañu fii waaj a ñëw pour ñu jaay leen euh, bi ñun ñun tudde ko war la loolu moom lu ñu leer la ñu lu ñu xam ni mu ngi koy préparé def loolu yëpp nag dañ si jàkkaarloog moom dañ ci jàkkaarloog moom loolu rek nag laa ni woon dinaa ko jotal maire fu mba rajo bi mën a nekk na ko dégg xam ne ñun ñoo ngi ci kanamam nekk na ci kanamam de ci kanamam tey lan de démb ci kanamam lan nekkoon mais tey ci kanamam la ñuy ne mm. jàkkaarloog moom